leeral bawoo ci jëwriñ gi ñu dénk wàllu jokko di communication ci biir nguur gu Sénégal kàddu yu Moustapha grace yooyu di tontu xabaar yi fi jub jëm ni am nay taskatu xabaar yu ñuy nam ma xoqatal ak faat seen bakkan mu ne loolee dara moo ci amul Abdoulaye Wade jàpp ne bu jugee ci réew mi lu yées la am Côte d'Ivoire mën na fa am ci waxtaan wu seq na ko génnekaay bi di La Croix nekk ca France Abdoulaye Wade ne jóge fi doom ji wuutu ko it bu amee du doon loo xamante ne ji daal dana ko metti mouvement Y'en a marre kàddu yi Abdoulaye Wade yëkkati ñoom lañu ca xam moo di Abdoulaye Wade li woon 23 juin na mu ko war a dégg na mu ko war a jàngatee dara la ci deful ba tax na nag euh, ci seen gis-gis xeex bi moo di fexe nu ñu ko fa jëlee atum 2012 moom Abdoulaye Wade moomile. taxañum xabaar baa nga mbokk yi des na ko taxar ñu jukkis lëf ci wàllu tàggat yaram ànd ci ak Malal Diagne Junior Alioune Diassé moo fare ci machine bi. Amadou Mohamed ci kàddu gi mbokk yi maa ngi leen di nuyuwaat di wéy di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média nañu ko junjëwoon ca booba rek la ñu duggee génn ci yàq ligi Moustapha Guirassy jëwriñ gi ñu dénk wàllu communication yëkkati kàddoom di leeral leeral gannaaw xabaar yi fi jib jëm ci ne am na lenn ci taskatu xabaar yu ñuy xoqatal ak euh, nu ni mel mu ne loolee amul hmm, musul am benn yoon bañ na ko ba démb ci daje ba ñu doon amal muy conseil des ministres Abdoulaye Wade njiitu réew mi sàkku na fa ci ñu taxaw ci code de la presse bu yees bi ba assemblée nationale woote ko Moustapha Guirassi ñu déglu ko ci micro jeu maxoon ñii di wax ni état mi ngi comploté xëy na ñoom ñooy comploté parce que dama gisul président wala gouvernement toog ni dañu war a dem toji lii ak lii ak lii am na koo xam ne wala am na ñoo xam ne ñoom ñooy préparé wu xëy na simuler lu mel noonu pour ëllëg jiñ ko état man maa ngi fii au niveau du ministère de l'information dafa sori ak man genre liggéey ju mel noonu sori ak président sori ak gouvernement kon wax jooju wax ju tilim la wax ju dëng la wax ju amul la nañu arrêté wax ju mel noonu état nekku ci gouvernement nekku ci ñii di porté nag wax jooju nañ leen laaj ñoom fan lañ ko teg ak fi ñu ko déggee moo gën yomb. Moustapha Guirassy yooyu la kaddu euh, mu ngi ko yëkkati ci ndaje mu ñu doon amal démb ngir euh, signal télévision bi di Touba TV licence bu ko mën a may mu amal diffusion hertzienne des na ci dellusi ci yeneen i xabaar. Abdoulaye Wade ci waxtaan woo seq na ko ak yéenekaay bii di euh, La Croix xamle na fa ne euh, daal ak jugeem ci bopp réew mi mën naa jur musiba mu raw ma am Côte d'Ivoire euh, leneen loo xamante ne ji wax na ko moo di ku ko mën a wuutu am dogg ak dëggu ga moom gisu ko ci réew mi doom ja di Karim Wade mu ne bés mu doon njiitu réew bu senegal boo amee du doon lu ko miti Abdoulaye Wade waxtaan woo mu séq ak yéenekaay bii di La Croix tënk lekk bàyyi Ndate Diop Euh, ñu ànd ak Baye Ndate Diop kon ci mbir moom ile ci waxtaan wi maître Abdoulaye Wade di xamle ni xel mënta jàpp Karim Wade wuutu ko maanaam nekk successeur am direct waaye kenn mënul te Karim présenté wu ci élection présidentielle su fekkee jóge na fii maanaam faatu na maître Abdoulaye Wade di ca dolli ni Karim Wade nekk président de la république bu réewum Sénégal loolu soofu ko ndax kii di doomam am na ay capacité yoo xam ne nii kenn ci kujje gi amul compétence yu ni mel ci wàllu koom-koom fii ci réew mi maître Abdoulaye Wade di yëgal ñi nga xam ni ñoom ñooy wax ni na dem na fi jógee ni moom bu fi jógee jafe-jafe yu rëy maanaam musiba moom mooy am ci réewum Sénégal yu raw sax ya nga xam ni moom moo am ca Côte d'Ivoire maître Abdoulaye Wade di xamle ni ñi nga xam ni ñoom ñooy yëkkati kàddu yooyu di ko wax amu ci kenn koo xam ni ci jamono ji war na ko mën a remplacer ñëwaat ci fitna gi nga xam ne amoon na ci ñaar fan ak ñett ak ñaar fan ak juróom ci weeru juin Abdoulaye Wade di xamle ni moom am na ci lu ci leer leer ni kilifa gu mag gu nekk ci kujje gi moom moo nekkoon ca ginnaaw loolu lam ci bëggoon mooy fexe ba takk der yi def njombe maître Abdoulaye Wade ñëwaat na indi na ay leeral ci mbirum vice président bi nga xam ni moom la doon yëkkati mu ni loolu nekk na vice président boo xam ne nii dañ koy fal wuuteeg lool président Sénat bi nga xam ni kenn falu ko ci waxtaan wi mu séq suñu naatangoo yi maître Abdoulaye Wade joxor bi na ci bu baax baax mouvement Y en a mu ni ñooñu ñooñu ña nekk ca kanam représenté wu ñu dara wuute naak lool ndaw yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci biir réew mi. mouvement Y en a tontu ko waxi ku daanu ci sareet la fa Abdoulaye Wade wax waxam jooju yëpp dafay fiir ndeel ne li woon wenn set sumay ak la ci askan wa bëggoon a wane Abdoulaye Wade déggewu ko noone waaye nag wax ji gudd gàtt moo di nañu fexe ba 2012 Abdoulaye Ablé kaddu yi caat la bu mouvement Y en a marre ñu déglu ko. ñu ne la jant baa ngi nii ñeneen weer la kooku et puis de di di firndeel rek ne ñi ko wër ay cuune lañ parce que buñ ko nettali woon li xew ci dëkk bi nit nit ñi génnee ci mbedd mi du mépriser jeunesse su Sénégal parce que jeunesse Sénégal bi xam nañ moom mooy kan. moom xanaa dafa defee ne boobu moom mooy yàlla ñun suñu Sénégal dañ ko gëm dinañ ci xeex dinañ ci liggéey dinañ ci def lu ñu ci war a def. moom jarul sax muy xalaat boppam ndax mu nekk candidat duñ ko nangu tey du duñ ko nangu ëllëg donc duñ ci sonn li la leer ba leer mooy ne. suñu Sénégal à partir de 2012 lañ koy tàmbalee liggéey ndax 10 ans yi ak 11 ans yi ñu ko jox dañ ko perte ci neen kon bu yeboo mu xam ne bokk ci élection yi mënul nekk candidat léegi nag bu nee nag moom moom rek moo fi baax dana leer Sénégal a ngi fi 12 millions de Sénégalais nga boole leen saaga ñoom ñëpp ne kenn baaxu fi man rek man rek maa baax na jël. Serigne Abdoul Aziz Sy Junior di ki yore kàdduk xalifa général lu Tijaan yi eh, sàkku ci askanu Sénégal ñu ànd akuk mat gu mat sëkk ànd akuk dal ba musiba ak njombe bañ feem lu mel ne li xew ci réewi arab yi yamu ca ne it sàkku na ci gouvernement bi mu bàyyee xel kuréeli ndaw ñu lu ca mel ne mouvement Y'en a marre mouvement yooyu ñu leen di déglu di déglu seeni tawat eh, moom eh, Serigne Abdoul Aziz Sy Junior kaddu yooyu mi ngi ko yëkkati gannaaw démb kon gannaaw ba muy dajee ak kuréel gi di Ligue des imams du Sénégal Cheikh Anta Diop. lu toll ci ñetti waxtu la sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amin jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu duppee imaam yeeg prédicateurs yi Sénégal yi waxtaan lu yaatu lu jëm ci wàllu réew mi jafe-jafe yi ñu nemmeeku jamono yi sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amin ne dek imaam yi tey war nañoo taxaw ndaxte seen kàddu war naa jipp imam Ahmed Dame Ndiaye di secrétaire général bu Ligue des imams et prédicateurs di Sénégal ne nag wax jot na ndaxte ñoom de seen mbootaay gi moom mooy fexe ba réew mi dellu fa mu nekkoon. xam ne mooy réunir pour jàmm am du ñuy lu ñuy ñaan rek ci ci ay ay ay jàkka wala lu ñuy tàll ay loxo donc imam yi am nañ rôle bu ñu mën a suyee ci jàmm ji waaye rôle bi bokk na ci ñu wax dëgg. ñi nga xam ne ñoo ñoo yor kaddu ci réew mi ñi am doole ci réew mi ñu wax leen ñu doxal dëgg wax dëgg ndax doxal dëgg wax dëgg mooy jur jàmm. Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin dolli ci. ne imaam yi de ñoom de responsabilité bu rëy la ñu am ci doxalinu réew mi dolli si ne jamono yi de li ñu nemmoo ki ci yenn dëkki arab yi buñ sàggadul mën naa dugg fii ci réewum Sénégal Égypte wane na ko Tunisie wane na ko ñu ngi nekk si impasse bu doy waar xamatuñ fi ñu jëm ñu ngi taxaw nag di xool loolu nag bu mu daal Sénégal ndax bu ko dalee muy gën a metti le waaw ndax fee la fa am ci ay nit ñu am ak ay nit ñu for dara amul ñun ci suñu réew fii ñëpp a bu ñu demee ba nekk dans l'impasse du baax moo tax il faut ñu dem bu ñuy dàq nit ak bu ñu koy téye yëpp nañ ko defee xel mais bu ñu ko defee coowu xale yi coowu xale yi yanaa maat yanaa jóob yanaa mbaay yanaa fal sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amine jéexale wax ne ne jamono moo soppeeku ba tax ne li war nguur gi moom mooy mu taxaw ci bëgg-bëgg askan wi RFM Thiès Cheikh Anta Diop jukkib euh, xabaaru njëli ci rajo Futur Média juróom benn waxtu fegg ñeent fukki minutes suite sas sas laaj yoo ca fare ca diwaanu Louga tuumal jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram ci ne it yeeg fullaak farataak fi mu ko waroon a jëmee jëmeewu ko fa day def lu ko neex moom Modou Diagne Fada boole ceek it ñëmi fu wutu joxu leen benn cër ndax accord yi ñu fekkoon ñu signé ko ba noppi mu jël ko fala nga ne le jëfewu ci dara loole rafetlu wuñu ko syndicat gi xam le ne daal la ñu bëgg moo di boole seen doole di yëkkatandoo tey doorandoo ba gerew bi ñu fas ne ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer yu nekk ñu daal di koy amal dimb ñu doon amal ab assemblée générale leeral yeeg Ali Nabédé euh, mooy seen euh, mooy njiital sut sa sas ca diwaanu Louga ñu déglu ko Khalil Sène bàyyi naxe bi muy def ak menace yi muy def suñu naataangoo yi ndaxte fii suñu charte réew moo ñu may ñuy ñaxtu bu ñu amee lu ñu naxade ñu ñaxtu waaw li muy jéem bi nag mooy maanaam ñun dafa mel ne dafa dañoo bañ négociation pour population bi comprendre ne fii négociation def fee amatul ñun dañoo négocier ba pare lu mu expliquer population bi mooy négociation bi du benn ministère rek moo fa war a toog waaye dañ koy fàttali que en a ay moromam ministre lañ doon négocier te ñetti ministre au moins teewoon nañ fa ak représentant ministre des finances confiance donc moi je pense que ministres yooyu moom gënu valable te république bi def naa administration dafa war a xanaa kay nit ñoo changé waaye boobu ba léegi même gouvernement mooy continuer si même état bi lañ ne ak si même république bi kon nag je pense que négociation amu fi application accord yooyu lañ la wax te bu fekkee dañu war nekk si pays bu sérieux def naa un ministre de la république bu si mbedd mi rek signé moi parce que en tey jii nii dafa mel ni daal lañ fa def daal dara baaxu fa woon li mu bëgg mooy di ñu yóbbuwaat si ay négociation ñu négocier wuñu dañoo négocier ba ñu signé ñu am lu ñu bàyyi ministre yooyu aussi am lu ñu bàyyi ñun kay nañ nañu appliquer appliquer lañ ko laaj tàggat jërëm Malal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed mbirum Casa fu ñu toll. daanaka commission bi yore wàllu eh, yar gi ci fédération bi jox na ndam lii. équipe bu Casa Sport nee na moom mooy finalu ci wàllu coupe du Sénégal ñàkkaloon nañu union sportive bu Wakaam ba noppi sax nag dañu ko daan euh, attu yàlla boo xam ne daal amuñu sañ-sañu def benn toj-toj wala benn luux mbuur ci wàllu fédération bi waaye itam dañ leen daan koppar yi toll ci un million yu ñu war a waaye ba xibaar ba jibee démb amoon na ay fitna gu judduwaat ca Wakaam googule supporters ya wàccaat ca mbedd ma naan ko ma ne seen naqar ak ñàkk nangu. dogalu commission discipline ba nee ñu sax dem ba ñuy sax ne daal waa ñi waa douane yi waa Casa Sport kon ñu finalu euh, ci euh, coupe du Sénégal dinañ leen ko xañ ba fu mu mënti am li wértuwar mooy daal boobu lay jongante nag dafa jeexoon ci fitna te lu ëppoon ci ñaar fukki nit amoon nañ ci gaañu gaañu yoo xam ne yu taroon loolu la ñu wéy ci wàllu li nga xam ni moo di euh, wàllu basketball ak démb ndoortaay ndoorteelu tàggatu ci équipe nationale bu jigéen ñi démb ci ngoon lañu ñu daal di tàggatu dana kon nekkoon nañu juróom-ñeenti ci ay Lions lu ëpp ñoom nag bitim réew la ñu jógee kon nekkoon ci Marius Ndiaye doon tàggatu mu nekkoon seen tàggatu bu njëkk gannaaw ba ñu dooree seen regroupement ñoom nag daanaka war nañoo toll ci fukk ak juróom-ñeenti jigéen yoo xam ne dañu leen a woo la ñuy def rek mooy kon waajal Afro basket bi ñoom itam gaynde yooyu tey ci ngoon Abdoulaye Wade njiitu réew Sénégal dañu leen jox kër yëmu leen digoon am na ñaari at ngi nii gannaaw bu ñu fa woon Coupe d'Afrique bi ca jàpp itam ni démb ca Marius Ndiaye président fédération Babatania jot na fa wane ay euh, tableau d'affichage yu bees mooy Mouhamed yooyu nga xam ni ci la ñuy bind équipe yay football. ak ku nekk ñaata nga dóor. ak ñaata nga dóor ak foot ya nga def yu bees pour la ca waaj a jënd ne fukk ak juróom-ñaar ci million loo ko jëndee ca réewum France ña ngi koy monté loolu la ci jublu rek mooy indi équipement yu baax ci wàllu euh, salle Marius Ndiaye boobu lay jeexal ak tool yu bëri ak Tapha Tine ak Elton dana ko dàq ba ACR. fanweeri fan ci mimu weer ndax assiette ñu ko jàppoon mu yem ak ñaar fukki fan ñett ci weer bi danoo njort ñu dafa ay yëngu-yëngu politique yoo xam ni kon karange du mate moo tax ñu dàq ko bee ay bis ba li jaajëf jaajëf Mala Diagne Junior loolee mu fi junj bu ca nekk dana ko yàkkali 7 heures ci tubaab bi heures ci wolof ndéem soob na suñu borom jaa jëf yéen it ci seen ànd rajo Futur